Ha, hadi bismillah. jërëjëfati Serigne Salim jërëjëfati Serigne Salim ngay siyaare de la sant di la remercier ci teew bi nga teew ci suñu biir ndax tey jii de am nañ lu jombe lu tax ni sëtu Serigne Touba ñëw suñu biir lépp lu sax dañ koy bàyyi ngir sa jëmm ji ndax Serigne Touba rek lañ am te it moom rek la ñu yaakaar kàddu nag duñ ko mën a guddal ndax ñun ku ñu woo ci leen te Serigne Touba woon dañuy wuy Serigne Touba ndax ay citoyen lañ ci dëkk bi lañ dëkk yor suñuy carte d'identité ñàkkuñu forog ku la gën a ndaw rek am na carte d'identité ma di ko dox di ko lijjanti ba tey jii nga ñëw teew suñu biir kon bis ñi ki tey jox nañ la loxo suñu bopp jox la suñu kat jox la suñu lépp nag fas yéene ànd ak yow ba luñ ca góobee gar ko ku dimbali nga nag ci ndox mi ba ku ne gis na ko ku ne teg na ci sa bët nga boo ñu dimbale ci courant bi dimbale ñu ci yoon yi ndax ay yoon amuñu ko rond point ba na mu soree fu waaye di mënta jógee da ngay dox ba rond point pour am lu la yóbbu bëgguñu xaalis bu ñu dugal suñuy poste di séddoo dañoo bëgg ku dox ci développement Touba ku defar Touba lañ bëgg ndax Touba lañu am leneen serigne touba teral nanu jox nañu kër jox nañu añ ak reer ak jox ñu mbubu yu ñu sol kon da no fasiyene and ak yaw ngir jëmmi serigne touba wala bok dañoo and ak mom te serigne touba rek tax bis bi ka jox nañu suñu tat ku nekk na nga xamé keuyit yu ngay watee APR lañ wax ndax kat mom jëmmam ji fi ñëw luñ naroon def sax banen ko ngir jëmmam ji ndax serigne touba rek lañ am kon kun ci woo dañ lay wuyu te touba fois rek ñun yow lañ àndal kon yow fa fas yéenee àndal Mbàkke ñu bëgg nag danoo bëgg ku ñu jàppanteel bëgg nu ku ñu jàppale ñu jàppale la danoo bëgg a jàppoo ànd liggéey defar Touba ndax moo nu ñor te moo ñu tax a jug jeunesse baa ngi fi xale yi jigéen yaa ngi fi Touba amul usine amul société kon ku leen di jàppale da nga leen di jàppale ci développement boo xamante ni mag ak ndaw góor ak jigéen di leen mën di yëngu oh. ci loolu lañ bëgg ci loolu bëgg ku ñu ko dimbalee ñu di la ko tataan ñëw naa sa saal nga recevoir ma la nga wax ak man gëm naa ko ndax maag Serigne Sylla mii ñoo àndoon kon man lu ma waay wax te muy dëgg rek bu ma boo ko waxee ma xam ko te ñun gëm nañ la te leer nañu ne li ñu wax dañuy ñaan yàlla pouvoir bi nga wut nga am ko ci barkeb sëriñ Touba leer na man loo diggee ñun di nga ko def ndax sëriñ Touba rek la yitteel te ñun dund ak moo ñu yitteel kon ñi ngi ñaan yàlla na nga ci am ndam bu bu la bu ca guddi yàlla nga ni wiiw ñun ñëpp ñu ànd koog yow incha allah la 30 ñun ñëpp danañ voté ji danañ génn suñu kër yi voté ji boobu ba tey maa ngi recensé nit ñi fu waay nekk na nga voté ji damay jël sama fiche sax di wan nit ñi naa leen booy voté nii ngay def ndax am na noo xam boo ko defee bulletin niin la ndax ñu ci bëri mosuñoo voté ren lañ bëgg tàmbalee voté kon faaw ñu di leen jàngal ñun ñi ko xam nii lañ war a voté nii nga ko war a defee mm-hmm. bala ngaa egg ci urne yi kon bu la 30 incha allah na ñëpp xëy bala ñoo taal añu ñu voté ji ku ne voté APR ñi ngi sant fas yu ku ne gis na ko ne ko ñëpp gis. na ko ñëpp gis mbootaay bu fi nekk yóbbaale ko boo demee ku fa xam ne nii lañ koy defee sant nañ la. jërëjëf Mbacke bu baax a baax. Gaynde ma defal nañu ko fii ci umul xuraa manqué woon na ndox lool jàpp nañ ci di wax ba mu defal ñu fi lu tolloog un kilomètre trois cent mètres jox nañu ko samp nañ fi juróom benn robinet yoo xamante ni nit ñaa ngi sàkk mu gën a dolli lii nag weddi gis bokku ca gis ngeen ko nii muy xelli weddi gis bokku ci kon nag ñi ngi ñaan képp koo xamante nii liñ bëgg muy bëgg-bëggu sëñ bi nanu ànd woteel ko ñu le ko mu dem assemblée nationale bu boobaa lépp lu mu bëgg liggéey dina ko liggéey ci barkeb sëñ Modou Moustapha